en hay sénégal hay dunyaji tnalago ko décrier hamara tv afkaɓe hen afka dostu fadji endu mm-hmm. afkode kari programme pourana a clé orne a zamana a o dowa kana o sabkiliye duniya ki xar xusi mi la di ñaanal ñëpp mbég tey àddina tey nag sukka dañoo dem àndend mm-hmm. maanaam yoof waaw dañoo def indiaso ay yoof ca Seydina Issa Laye ndaxte nag Laye Maxtaar Laye ndaxte nag milliers indophiles chaque année mhm. dañ fay daje média yu bëri tam di fa teew nag di fa teewal macha allah indophiles yi mhm. tax nag euh, ñu daal di dem yoof seeti ku mel ni Seydina Issa Laye ak indophiles ya nga xam ne ñëwoon nañu mbooleem ku nekk kàngam ci mili Indophile te woon nga ci bés boobu mu nekk Indophile li xam naa en même image vidéo publique bi dinay jàll mu nekk nag bés boo xam ne bésu laayeen yi la bésu appel Seydina Issa Laye mu sell mi macha allah lay maxtaar lay Seydina di nuyu nag communauté lébu yëpp macha allah rawatina waa yoof rawatina waa jàmmalaay yëpp maa ngi leen di nuyu euh, bu ñu waxee xew-xew bu mel ni xew-xewu kilifa diine moo tax ñu koy def waaye nag moom dafa nekk doomu Yoff doomu lébu yàlla xiir ko nag ci Inde mu bëgg Inde lool lool di ko dund comme ñun niñ koy dundee comme suñu maam yi nañ ko doon dundee maam yi nga xam ne ñu ngi gis ngeen leen ci video bi ku ci mel ni ñoom Mama Awa Ngom Lata moom mu mel noonu waaye nekk nit koo xam ne nit ku espécial la ci biir milieu indophile lu tax mu spécial ci biir milieu indophile milieu indophile yàgg na fi waaye amul kenn ki nga xam ne tey dina woote bés yu mel nii mm-hmm. di ci def alalam waaye di ci def la mu mën ak la mu mënul ci bésu Baay Laay bii nga xam ne ñëpp a koy feete ñëpp a koy màggal chaque année mu daal di koy jël nag di ko def Indophile yi tamit daal di ko ciy delloo njukkal daal di koy fekk si saa yu woote ñu fekk si ko ndaxte nag dañu ne koo xamul na nga ko def nam la def moo tax te moom moo def noonu Indophile yi moo tax Indophile yi amuñu lu dul su xewlee woote ñu daal di koy wuyu si gis nañu ñaar ñoo xam ne xuloo nañu ay yoonu yoon yoo xam ne chaque appel ay nit dañ fay juboo mhm. ay ñoo xam ne dañ doon toog duñu tuddante année mais dañuy ñëw bu ñu jubal sax doo xam sax lan moo leen juboolee lu mu julli rek ku ci mel ni Mamadou Kane mi maa ngi koy nuyuwaale def na geste bu noble foofu am koo xam ne jote woon na ak moom waaye dafa daf ko jégalu ci biir mbooloo bi mu nekk nag euh, acte boo xam ne acte bu noble la ndax ku rëy mënul lu mel noonu te loolu ci kër Seydina Issa rek laa koy gis ba Millie Endfield de kër Millie Endfield ñeneen ñi sax dañ naan baa du wàllew di ko nëbb ndaxte yenn yi ku yàlla baaxal dëgg moom moo koy mën day yëngu ci social maanaam nit day feebar mu dal di jël la mu am woo ña nga xam ne aussi war nañ cee mën a jàpp moo xam nga feebar feebar yu métti yoo xam ne doo ci mën lu bari waaye day ciy jóg daal di ci dox wax ci nit ñi dajaleel la daal di lay jox somm boo xam ne di nga ci mën a faju du benn du ñaar du ñett du ñeent mili en nañu mën ma cee seede keroog bi may wax rek am na ko ma ne man mi seede laa ci kon acte yu mel noonu daf ñuy pousser rek ñu daal di wane nit ki moom mooy kan wane aussi keneen mili en du fecc ak woy rek moo fa am voilà social mu ngi ci biir te li ci gën a marqué nit ñi ci bés bi mooy dafa jël mbooleem ñi nga xam ne ay woy dawlu lañu nekkoon ci milieu indophile làkku moo xam ñu làkku bu yàgg wala sax ci ñi nga xam ne xam nañu leen daal di leen wàcceel kaamir dafa wàccee kaamir bu am solo loolu nag euh, nekk mbégte bu mag a mag boo xam ne dañu ko jara wone ndaxte nag dañuy war di wone nit ñu baax ak jëf yu baax yi nga xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy def rawatina ci milieu indophile ndax dañuy xaare fecc ak woy maanaam mbumbaay la ñuy xaare sañse biling biling waaye fii milieu indophile la ci beneen waa am na ay valeur yu mag a mag macha allah di jaalewaale suñu papa ji Sakaria Rafisi moom mu ngi woon ci bés bi taxawoon ci taxawaay bu rafet moom tam soxnaam wàññeeku di jaa jaale aussi Adja Njole Jong moom tamit euh, suñu yaay la nekk fële ca ñu Lac Rose mm-hmm. di ko jaalewaale di jaal xaar gi ak ay rakkam yëpp mm-hmm. lii laa indi woon ci India Show tey Sukambaay mu mm-hmm. nekk loo xam ne nag day bees ci milieu indophile waaye day bees ci téléspectateurs yi ñuy seetaan ak téléspectatrices yi waaye gannaaw lu mën mën da ñàkk la foog mu am te dañoo jóg ndaxte nag solution TV dafa jóg ak ay baax a baaxam fas yéene seq ay jéego yu mag a mag dal di jubal ci milieu indophile appliqué aussi milieu indophile carrément moo xam ñu di leen fekk moo xam ñuy ñëw moo xam sax ñuy organiser ay yeneeni programme incha allah mm-hmm. fii ci solution TV moo ñu poussé tey ñu dem seeti Seydina Issa Laye foofa ca yof ci bésu Laye Maxtaar Laye Seydina Issa mu màgg ma ji sa waaw xam nga mbirum Euh, comme que léegi da ngeen di nekk di xuloo <coughs> bañ leen di jubóo loolu moom mooy wane ni yéen indo yi euh, seeni mbir léegi mi ngi bëgg a doy waar parce que indo yi euh, da nga leen doon xool na ñii xuloo duñ ko def ay mbëggante moo fa war a am ak kii waaye ndekete yoo xuloo mi ngi ci am waaye macha allah. <laughs> Euh, wane ngeen ni bon am ngeen koo xam ni seen wëllale la euh, boo xamante ni bii fa ngeen di dajee bu bésam jotee mm-hmm. aussi ngeen dem fa yéen ñëpp daal di dajaloo mm-hmm. loolu nekk loo xamante ni bii euh, lu am solo la mm-hmm. parce que pareen saa yi nit ñi mënoon nañu wax ne kat moom peut-être ci li nga xam ne moom lay yëngu. Mhm. ak yéen ci li ngeen di yëngu bokkul loolu moo lay wan ne la. Mhm. Euh, ay culture ak yooyu mën na bëtt frontière yi mën na sori lool léeg-léeg nga dégg nit ne. Mhm. diw de man de wax dëgg fa yàlla lii laa ci lii laay yëngu waaye nga gis. ab euh, kilifa goo xamante ni kii daf koy bëgg ci li nga xamante ni bii mooy mbir moomu nga xamante ni bii moom la ne. pareen saa sax dañ naan lii nu mënee ne. dëgg la pourtant day am. Mhm. day nekk. Mhm. donc loolu nga xamante ni bi aussi tamit moom it mi ngi koy def. Mhm. vraiment nga xamante ni bi bu ngeen ñëwee mu njaboote leen. Euh, jël leen yéen ñëpp def leen ki fexe aussi tamit yi nga xamante ni bi rëq-rëq la fi ci biir njaboot gi ñu fexe loolu daal dee dakk ba ku ci nekk euh, mën Euh, delluwaat bëggante soppante. parce que mhm. loolu mooy but bi. Mhm. parce que ay nit bu ñuy ànd. Mhm. faaw ka ñuy am ay jafeñ-jafeñ. jafeñ-jafeñ mënul ñàkk. waaye nag nañu xam ni tamit jafe-jafe boo gis rek. kii nga ca gannaawam. dëgg la euh, tey it jafe-jafe sax day dëgëral après. Euh, ànd ci kaw nit ñi ku ci nekk xam. parce que nit bu la defee lu la naqari tey. ma xam ni lii moo la metti ba mhm. tax tey ñu am ci jafe-jafe ëllëg si mhm. biir bu ñu demee ba loolu kii mhm. warumaa jaaraat ci même erreur defaat même chose wala yow tamit bon di nga xam ba yenn yi tamit dootu dootut am donc loolu mën na gën a yokk ay jéego moo tax eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne ku dut mer bokkoo ci man waaye kuy mer di ko téye bokkoo ci man parce que am na yoo xamante ni bii du lu ñu war di téye donc donte nag mën nañuy mer. Mhm. waaye waroo di jàppal nit ki ay mer ak affaire yooyu moo tax ñu naan la. Mhm. loo téetee mer. warta romb ñetti fan. Euh, bu ko mhm. rombee rek euh, kii la. donc génn ngeen ci njullit. donc nag loolu da lay wan ne la. nit ñi mën nañuy mer waaye aussi tamit war nañuy mën a bàyyi. taxawaay boobu aussi tamit taxawaay la boo xam ni taxawaay bu am solo la. macha allah. sukkuraan. jërëjëf El Hadj Sanjogu nga ci ñëwee baax na macha allah ndaxte nag euh, loolu rek la jullit moroomu jullitam sama genre yi nga xam ne boo leen tongoo dañuy xaw a dof boo leen tongoo maanaam dootuñu bëgg a dajeek yow sax te juboowu leen ah kon bu defee yu mel noonu wala sax ay nit di juboo ci këram muy répété wu di répété wu ay année année année kon loolu euh, nit ñi naw nañ ko ci bu baax a baax a baax te mbooleem ma doomu aadama war nga jël exemple aussi ci wàccee sa bopp ci aussi di moytu di tongoo di di jëmal sa bopp aussi ci jàmm yàlla ndaxte nag jaamu yàlla moo njëkk te moom mooy mujj te def ci woo nit ñi macha allah Omar mun Euh, d' abord la félicité moo tax kon. bii euh, mhm. baas gisuñu la ko da nga doon noos. Ah. dama daw nekk yow <laughs> ndekete émission am na maa am. na nekkoon am solo am na solo euh, am <laughs> te woote la boo xam ne comme at mu ne lay am. <laughs> Mm. wutee ko te damay dégg à chaque fois booy nuyoo di ko tudd. wala booy tëj waaw waaw di <laughs> tax bu watee te nit ki bisam rek la am te bu sañoon bu amee bisam ay nitam teew mm-hmm. yéen li ngeen def am na solo mm-hmm. mais loolu lépp lu koy indi mooy mm-hmm. mooy kilifa rek maanaam daje moo gis war am kilifa kilifa bi mooy benn kilifa lay doon mais ñu nangul ko. te ñaar feeñ na ci mooy. moom toog na toogaay kilifa mais aussi ñi mu jaboote nangul nañ ko loolu tey jii mooy li ëpp solo parce que mhm. mooy indi ba mhm. rus gi ñu koy rus mhm. ba ñaar buñ fa dajee seen tong ak seen ñàkk juboo sax du feeñ dañuy ñëw parce que ci jëmmam ci léegi te loolu moom moo ko doxee moom am na nu mu doon doxee tey jii maanaam yor jaboot ba pare du ut fu mu ciy far wala bañ a doon ndey ji seex maanaam ñamu jaboote yëpp dañuy jàpp ni noonu loolu normal mais moom da maanaam ci biir njaboot gi dalay wan ni xamu ci kii mooy noonam wala kay dafa jël ñëpp rek jabatu woo ñëpp moo tax keneen ku ñëw tamit jubóo rek nga a def mm-hmm. parce que boo deful nànk da ngay wér mm-hmm. ci jotaay bi ah, da ngay wér ci jotaay bi kon moom mun na mun naa wax ni moom kon loolu jikkoom la te moom taxawaay moom moo indi mm-hmm. doxalin woowu ngeen doxal mais yéen ñi ko fekki tamit gëm naa ni lépp lu tax ngeen jug dem rek am ngeen ko feneen mais le fait moom mu am lu mu mel yaatal leen rek loolu tey jii mooy tax nga mën a bàyyi yitte bu ne. Mhm. ngir mën a dem fekki ko. milieu boo dem nag li am ci indo yi moom mhm. fépp. ñii jubóowuñu ñii duñ waxante ñii lii nii parce que nit ñi ñoo tollawul ay personnalité am loo xam ne mën a bañ a doon xuloo mhm. personnalité nit ki la nit ku ne daa am ku mën a defal nit ku ne daa am ku mën a waxal daa am ku mën a àndal mais am na foo xam ne bu ñu fa eggee ku ne day jël jikkoom bàyyi këram léegi nag ñu ñëw yor esprit groupe maanaam fond ci groupe bi dugg te loolu Seydina Issa moo ko indi kon yéen déjà kilifa la mais nangu ngeen ku leen yilif dëgg la waaw te parce que te loolu dafa jafe moo tax ñu naan leader dafa baax ci. Mm-hmm. groupe mm-hmm. leader nag du rek ay at du dara nit dina am vingt ans sax nekk un leader boo xam day converger. Mm-hmm. nit ñi bu ñëwee ci ñoom. dañuy obligé moom ni mu bëggee ñoom ñu koy doxee. loolu nag day fekk yoo ngay doxee noonu. léegi dafa am benn affaire boo xam ne. peut-être ñun ñu nekkoon Pikine complexe culturel. Uh-huh. xam nañ ko ci indo yi mais man déggatuma ko gisam mooy tuur indo yi doon amal. tuuru parce parce que nit ñi fekk ku ne mu ngi nekk ci ruqam di lii rek mhm. yu bëri mën na am parce que ay malentendu mais bu dee ni waxtu ne dina day am lu leen dajale rek mhm. yu bëri mën nañ ko fàtte yu bëri mën na ko lijjanti yo fàtte est-ce que yooyu ba léegi mi ngi am yi ngeen daan def yooyu mais mu ngi am parce que keroog rek euh, ay jigéen ñu bëri ñu ngi may entre interpellé ci yu mel noonu mhm. di ma ne euh, vraiment bëgg nañ organiser ay affaire te am na lu am solo yu ñuy programmer le 8 mars mais dañ koy wëyal maanaam di dajool dajaloo dajaloo yooyu dañuy bëgg sax may ñëw di ko couvrir solution TV ñëw Walf TV ñëw macha allah di ko di ko couvrir kon loolu euh, maanaam xawoon na dee benn côté mais gars yi ñu ngi koy bëgg a dekkalaat euh, xam naa ne. waaw Omar bun Xataab sa sa laaj mu ngi noonu ma danga wax lu am solo mooy nit ki di nga mel noo xam ne ñi lay mag sax dañ lay jox cër. Mhm. loolu moo ko dal maanaam am na ñu ko wax ci image yi keneen Seydina liñ ko mage fas mënu koo daw. Mhm. waaye cër bañ ko jox ak dañoo dem sax ñoom boo mujjee ci ni mu mel la ak ni muy comporto wu ak lam leen woon la kon euh, mu nekk lu am solo di macha allah. andete nga lu am solo. Mm-hmm. Euh, mën naa ne sax li nga andi lii moom ma ci gën a neex. Mhm. parce que tey wone nga la nga daan wax ne Indo Inde ak Sénégal li ñu bokk bari na. Euh, dafay neex des fois. Mhm. nga xewle. Mhm. nit jéggi dëkk ñëw sa dëkk. fekk si la. dama gis sànq ay Indo yoo xam ne euh, ñu ngi ciy wax. mu nekk loo xam ne dafa neex. parce que ñun ñëpp benn lañ faatu diine gi ñun ñëpp ko bokk. ndax ñun ñëpp kenn lañuy roy muy Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nag li ngeen def nii faatu dama koy rafet lu baax a waaye dama naan ki nga xam ne moo ko organisé mhm. kooku jar naa ñee mhm. te jar na topp jar na dem tamit def royukaay ndax kii dajalee mbooloo mhm. bu toll noonu jox leen ngeen lekk jox leen ngeen naan ñi nga xam ne sax amoon nañ ci problème jaare fa sax juboo loolu bàkka loolu astafurlaa loolu waaw waaw loolu tiyaaba bi mu ci am tey mun naa ne sax euh, mun mun mun na lu bëri daal maanaam tiyaaba bi mu ci am dafa foor mm-hmm. te des fois da gis ñoo xam ne faatu ay njiit yoo xam ne la matuñ jiit da nga gis ñoo xam ne euh, dinañ jiite ay nit mais bu buñ sañoon ñii ak ñii duñu juboo parce que dafay am fu muy far mm-hmm. am fu mu dut far mm-hmm. kon tey boo jiitee ay ay ay nit Euh, nga mot njiit mm-hmm. yenn yenn responsabilité yoo xam ne euh, mooy loolu mm-hmm. nga nangoo tamit euh, boole lu ñoom ñëpp def leen benn mm-hmm. tey kooku noonu dama naan royukaay la dëgg la kon tamit ñu ngi koy ñaan bu baax yàlla na ko yàgg di def rek ñu ñu ñuy ñaan tamit xuloo bi <laughs> bañatee am bañatee am yéen ñëpp ngeen nekk benn comme ni ngeen ko defee la fois passée bii di ñëw insha allah nañ ko fekkee jàmm damay daal teew waaw waaw ba nga ah, teew moom damay nga noonu noonu lay demee ndaxte nag animateurs waa DTV maa ngi nuyu suñu grand pam di nuyu grand Mamadou Kane ñoom tam ndax ñoo ñu jiitu ak Omar Dieng ak soxnaam Ndeye Laye Souka Mbaye euh, dañuy wax ni que lu dul jàmm jàmm rek moo ko gën dëgg la loolu rek la loolu jàmm jàmm moo ko gën. Mhm. te ngeen bokk ci loo xam ni euh, groupe boo xam ni la. Mhm. group bu indophile. Mhm. indophile leen kii ma xol bu dëgg la parce que euh, li ngeen di dund mooy lu neex. Mm-hmm. da di enjoy lu neex. waaw lu neex lu neex ngeen di enjoy. muy affaire de endophile. Mm-hmm. Euh, nit bu bu bëggee bu mënee jooy sax. Mm-hmm. dañ naan la ñu bal ñu bala ngay ndiroog eh, endo. tey dañu naan su kaa xanaa endophile. waaw endo waaw endo laa endophile laa <laughs> waaw loolu moom am na moom. parce que loolu ci xol bu set la. mais tamit moom mi nga xam ne moom moo di Seydina Issa laay ñu ngi koy. ñu ngi koy euh, ziar laay Maxtaar laay Seydina laay Issa. ñu ngi lay ziar lu baree bare. ndax moom it moo indi groupe. dëgg la xam nga tey bu bu ko neexoon tey mm-hmm. du ngeen ca dem mais tey ngeen dem ngeen toogandoo waxtaanandoo añ jot mu jox leen ngeen añ mm-hmm. jox leen lu ngeen naan àndaate ngeen di leen toog waxtaan voilà toog mm-hmm. waxtaan ñu xuloo woon juboo ña nga xam daaw ñu am amuñu woon benn affinité ñoo ñu juboo waat kon donc moom dañ koy wax mention spéciale li ma ci gën a neex mooy li nga xam ne moom moo di wàcce kaamil yi ci ñoo xam ne nekk ñu fi woon nekkoon ak yéen nekk ñu fi woon moom mu am xel mi ni xaar ñu fàttaliku ñaanal ko kóllëre ginnaaw rek lay féete voilà ba pare boole ko di def ay don donc ñu ngi koy ñaanal ndax jàmm ji bu jàmm ji mooy weex bi ñuy sol te kon loolu mm-hmm. firnde na ko donc dañ koy ñaanal rek yal na ko yàlla defal jàmm te ñu ngi koy ziar lu bare bari encore une fois mm-hmm. macha allah mm-hmm. kàddu yi fi jib yëpp rafet na macha allah na des fois nit na la loo jotee ak diw waaw ban problème nga am ak diw doo ko xam man ne daf ma ko mos a laaj ma ne ko du ñàkk ni moom moo am problème parce que man yëguma problème man parce que koo xam ne laal woon di mais des yooyu koy indi mooy ñàkk di toog di waxtaan. waaw parce que nit mun na jàpp lu nekkul. Mhm. nit. Mhm. tun borom mën na ko bindee noonu mu jàppe ni kii noonu la. Mhm. billaahi naka de kii moo gën a bëgg ci àddina mais moom perception rek lay am ci ni kii sama lii léegi nag ci jotaay. nga xamee ni naka de kii. ku oyof la ku baax la ku yaru la te la yéene la te yooyu waxtaan moom moo koy indi. noonu am na problème yoo xamante ne bii sax. su kaa damay ñëw ne ko Didi nee na waaye bu mu ko yëg. waaw loolu loolu léegi su jàpp na Didi ci loolu. te du ko ko yëgal voilà jàpp ma jàpp ko di ko ko léegi Didi tamit bu ñu gisee su kaa wàññi ci moom mu ne kii lan la ma jàppal xaaral ma ko wàññi ne ah. taxal ma téye sama bopp léegi nag ki ne woon bu mu ko yëg kookoo indi problème bi léegi kii daa bu ko defee nag loolu mooy kii xamut lu mu ko def te kii liñ koo wax du ko wax kee boo ko laajee ne ko lan la mu ne dëgg la ba pare am ñoo xam ne dañuy ñëw ci ñëw di la wax ci nit la nettali te la la nettali faatu lam wax lam wax moom lam wax ca wax ja mooy li Serigne Babacar doon wax rek ne xaw ma mais nii kii du toog nekk ca kër ga ga may na ca naaj wa problème c'est que tey boo ma ñëwee wax dara ne ma bu mu ko dama naan la déedéet dëgg la parce que dafa am loo xam ne boo waxee lool rek maanaam créer nga problème. Mhm. léegi nag yow balaa ñu lay créer problème. Mhm. ne ko déedéet. dëgg la parce que boo yëgee ne diw defu la dara. ba noppi mu wax la dara ci moom. Mhm. ba noppi naan la nag. dama koy wax mais mais nag mais nag nit ki booy ànd ak moom comme tey maak yow nii tey saa mm-hmm. xam naa jikko joo xam ne ci yow barke Sëriñ Tuuba bu wax ak lu mu waxul mm-hmm. nit da ngay ànd ak moom ci yenn mm-hmm. euh, circonstances yoo xam da ngeen di ànd mu jékki-jékki dettel la wala mu jékki-jékki nit xooli la bët boo xam ne nekkul sax ci yow nit du mel noonu day am nit day ëmb day day am te li nga wax ne saa li maa ngi wax ak ku ma nekk loon ci bërëb boobu docteur bi dafa ma mës a woo ci dama dégg nangam ak nangam. Mhm. te diw non daf ma ne diw moo ma ne nangam ak nangam ne yaa ko wax nangam ak nangam. te waa te bëgguma maanaam ma ne ko xaaral ma woo diw parce que ñoom ñaar ñëpp <laughs> ñu ngi ci beneen salle <laughs> directeur ma ne ko xaaral ma woo diw ak diw mu ne ma déet dimbale ma ma ne ko déet. ma ne ko man du ma nekk kii kuy kuy meewal kenn nañ nañ toog ñoom ñaar. ak sa jëmm ak sama jëm mu wax wallaahi en mm-hmm. sa biir xol. waaw nit ki day nit ki day xam waa dëgg la loolu di lu am solo. defee loolu damay foog ne yow am na loo dese. waaw parce que man mënu ma comprendre yow ñuy kaf diree nga war ma jikko ju baax nit ñëw mm-hmm. wax ma lu bon ci yow ma gëm ko déedéet. damay ma woon dëgg la te muy te muy dëgg sax nag euh, mos na ma arrivé ci beneen koo xam ne dañ ko tuumaal. suñu diggante mhm. mu mere ma ma ne ko war nga xam ko mais yàlla day dogal ay année ci ginnaaw mu dem ba découvrir réalité bi nag seen noonu yéen doy du yàgg <laughs> indu yi non non non non non yàgg. Mhm. dañoo bokk luñ bëgg ñoom ñëpp. muy waaw merci. moo moo loolu indi mooy xol bu sab bi. waala loolu loolu mooy dëgg sukkambaay xanaa rek di jaajëfal Seydina Issa Laye di jaajëfal aussi ña fa woon ñëpp rawatina jabaram ndax jigéen ju mën góor la wax naa ko ci ay kàddu léeg-léeg sa jëkkër am ay xarit yu jigéen wala bari ay jigéen nga fiir mhm. bu ñu ñëwee nga di leen bundu xataal di am geste yooy def ak ñoom mais macha allah ku ñëw dalay accueillir amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw tamit ci jigéen ñi bu baax. am na ñu dong man. <laughs> <laughs> non non day laay allah jigéen ji sëy naa jigéen kese la am sëy naa ah, borom fulla la góor gu bëri fulla la gu bëri ah, fulla ku am diine la macha allah ku xam boppam la te macha allah. ñooñu la xale ñooñu la xale yi bëgg. waaw dëgg malheureusement loolu nag bëgg la Omar bun Xataab kon day laay maxtaar del xoolaat nag macha allah rek jigéen ju mën góor la dañ koy encouragé di encouragé bépp jigéen aussi bu mel ni moom yore qualité yu baax yooyu ndax man. tout le temps dañ may la ana kuy Seydina kuy Seydina parce que li ma koy tudd moo bëri. Seydina daf ma fekk ma ma may boros ko rek daf ma fekk maanaam. ci mhm. ay émission mhm. ma wéetoon lool ci milieu indophile waaye mu jël ma yëkkati ma. dooleel ma teg ma ca kaw kon ku mel noonu mënoo ko fàtte ci lenn mënoo ko jëlale ci lenn mënoo ko tànkam lu kon yàlla na sa jàmm yàgg laay maxtaan lay laa indi woon ci seen rubrique India show mhm. euh, di jaajëfal Modou Gueye Ndiora Bassi mi nga xam ne nag moo ma solalati ndaxte temps yi moom ah temps yi raflewu ma yére daal temps yi abbiwu ma raflewu ma la très belle di ci ci ci sëba bi nii macha allah fël-fëlaale kon jërë ngeen jëf rek ba di prochain ndegem neex na yàlla suñu borom su kàmbaay macha allah Fatou Dieng Sall ah.